waaw camion bi da doon teggi ah mais jaar si kaw euh, raay bi mais train bi heureusement teel na ko gis ba taxaw quoi waaw mais gis nga mais lii wóorul quoi lii moom dansé bu mag la quoi xam nga booy teggi nga teggi feneen mais ci kaw raay bi moom xam waaw camion bi di doon teggi ah mais jaar si kaw euh, raay bi mais train bi heureusement tel na ko gis ba taxaw quoi. waaw mais gis nga. mais lii wóorul quoi lii moom dansé bu mag la quoi xam nga. booy teggi nga teggi feneen mais ci kaw raay bi moom xam waaw. camion bi di doon teggi ah mais jaar si kaw raay bi mais train bi heureusement tel na ko gis ba taxaw quoi. waaw ah, mais gis nga mais lii wóorul quoi lii moom dansé bu mag la quoi xam nga booy teggi nga teggi feneen mais ci kaw raay bi moom.